kon fekkiwaat ko ren ñu bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan. waaw di waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaan yàlla mu jéggal ñu te nangul ñu suñu koor te jéggal mboolem jullit te nangul ñëpp seeni koor tey ñaan yàlla ñu fekk ku déwén yu bari tey baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp tey nguur gu bees suñu borom boole la ci ñi bokkoon ci xeex bi. mu mel ni kon euh, euh, jeunesse bi am na ndam waaye Serigne baar am na ndam bi nga engagé ci xeex bi ndax da nga yëgoon lii wala loo gisoon la wala da nga ni rek li fi nekkoon nekkul lu baax lu arrangé ba tax nga xar ca tànk tubéy waaw euh, liñ nekkoon mooy li nga xam ne moom la yàlla bëgg mooy dëgg ndax ba ma fàttalikoo daaw nii defe naa ne mu ngi fekkoon juste Diomaye fay di doog a am huit jours ci kaso bi defe naa Euh, parce que booba jàpp gi jàpp gu bees la sama interview yi ma defoon fii ci daaw yëpp maa ngi doon wax pour ñaan ñu bàyyi ko ak doon wax tooñ giñ ko tooñoon kon donc buñ demaatee ba tey jii mu nekkaat kori gi même bis euh, suñ borom jël kàttan gépp teg ko ci loxoom loolu euh, dañ ci jàng yàlla xam ne yàlla maanaam féeteeg yow rek moo am solo te ñun nag yàlla rek la ñuy wër ci lépp luñ mën a nekk loolu moo taxoon ñu ànd ci xeex bi di ci xeex ba tey li am am te yaakaar naa ne dinañ taxawaat fii nañ doon wax daaw ñu di ko wax niñ ko doon waxee daaw ñu waxee ko noonu euh, su ma xoolee rek benn jàngat bu ndaw mooy imaamu daaw bii defe naa ne korite gi jàll groupe bi jomaay fay bokk wala boog bi ñuy xeex pour taxawal lii dëkkal nañu sax safara neexut waaye dinaa ko wax te wóor na ma ne tey du jàkkaarloog jomaay di ko dëkkal safara kon moom dina soppi discours am may wax loolu waxuma ko moom en tant que moom waaye damay woo imaam yi sama wax ji ñoom laa koy wax ñu delluwaat ci yàlla ragal yàlla xam ne kàddu giñ yor ci biir jàkka moomuñu ko kaddu yàlla la kiñ fa taxawal ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la kenn amul droit taxaw ci jàkka di wax loo xamante ne ci sa bakkanu bopp nga ko teg wala sa intérêt yi bopp ngay lijjanti suñu ko defee rek. président Macky Sall ñëw ak président Diomaye Faye ñëw ak président Sonko ñëw ñooyam ci ñun ñun li ñuy wax yàlla lañ koy waxal duñ ci xàmmee sàmb ak Demba waaye bu fekkee président Macky Sall dafa ñëw nga jël sa discours taaye ko ba mu jekk nga ciy wut lu ko neex bu subaa bu Diomaye ñëwee nga soppi discours bi di ko taayewaat di wutaat lu ko neex te yàlla nekkut foofu alxuraan ba ko yàlla waxee li nga ëpp na junni at kenn ku nekk ci ñun boo wéetee di ko jàng day mel ne yow lay waxal cela veut dire que mooy dafa wii sa gi di ko wax ndax dëgg rek moo sax alxaqu saabit kon loolu imaam yëpp laa ciy woo ñu delluwaat ragal yàlla ndax sañ naa leen koo wax ndax kenn laaj ci seen biir ndax man imaam laa ñu delluwaat ragal yàlla ta de te te sàmm yàlla ci sunuy wax ndax imaam yi seen discours bari na ci loo xam ne politique la ak di niiwal doole opposition tey nag mën naa maa wax sax bu ma neexoon ma ne du nekk ci opposition kon bu ma neexoon du ko wax waaye nañ bàyyi di néewal doole opposition ci suñ micro yi jàkka yi ak suñ min bari bëri na nag imaam yoo xam ne danañ wax te yàlla tax waaye bëri na ci ñoo xam ne dañuy politigaale nañ ko bàyyi gis naa démb imaam yuy laaj sukaru koor ma wax leen ne koo xam ne ba mu bu nekkee ci musiba doo ko ne masta bu nekkee ci xéewal bu ko ne musalma te nag daaw jomaay ba mu nekkee ca kaso ba mënoon nañoo wax ba tudd ko wala ñu wax ba tudd tooñ kiñ ko tooñ tabaski gii jàll mi ngi fekk président Ousmane Sonko ñu barikaate ko ca këram julli jiwut di mbokkum jullit ñu tooñ ko tooñ gu leer naññ imaam yëpp yu ci bari boog sëmp ci seen làmmiñ ne miig tey nag buñ bëggee ne ko sa xéewal gi mosal ma ci mosal ma nag mastaa ko jiitu man mii di wax ak yow tabaski gii jàll ca kaso ko jullee te sama mbokki imaam yi ñëpp dañoo sëgg mu jàll doon wut lu neex ki sàll loolu nag nañ ci jàng waxuma ko pour xaste waxuma ko pour fàttali lu ñaaw waaye nañ ci jàng xam ne yàlla rek a wóor kenn amut doole kenn amut kàttan ku dul yàlla doo dara yàlla rek a fi nekk kon nag bu ñu demee ba jox la minbar nga taxaw taxawaayu suñ borom fàtteel sa bopp tey waxal yàlla su ko defee kon lépp dana mel ne li nga wax ren ak li nga wax daaw ak da ngay jël waxu ma Ahmada Tidiane boo xam ne ba mu koy wax seen war a ngi dund soo ko tegaatee tey day mel ne yow lay waxal parce que boobu yàlla rek moo taxoon muy wax te yàlla du fi jóg waaye nit moom jërta waxal jërta jaamu ndax nit moom dara waaw loolu rek laa amoon message bu may lancé nga nekk tey xañ na la sa njaboot yaa nga ne daaw ñu ngi la fekk ci kaso bi nga julleeku lépp ci dëgg rek mu mel ni euh, même bu la dee rey dëgg moom baa Bara ci lay nekk guddi nekk ba ci xam nga àdduna moom loo gis daa metti ñun ñi ñëpp suñu way jur bi ñuy jur daa metti ci ñoom waaye ndax liñ ko jënde woon jar na ko wala jaru ku ne xam na ne xeex ak opposé wu rek dafa metti surtout cib sëriñ sax waaye nag ndax li ma doon def li ma ko jënde jar na ko wala jaru loolu tey yaakaar naa ne ku xool di nga xam ba xam liñ ko jënd jar na ko wala jaru ko man wax naa ko président Ousmane Sonko ma ne ko toogal ngay seetaan télé di nelaw di noppaloo parce que yéen def ngeen résultat ba pare parce que Macky Sall fi mu jëmoon ku mën a fexe ba mu wan ñu gannaaw dem bàyyi ñu fi loo defati rek baax na. mu mel ne pression bi def na résultat ngeen toog président te bokk na ci li ko pété du ba tax jërul pression moom sax amul pression waaye damaa bëgg mu gën a noppalu. ñoom jomaay ñu gën a dalal seen xel di dallu di football yi di def lépp parce que ñoom def nañ résultat ba pare. parce que bu dul woon ak ñoom heure bi président Macky Sall mi ngi fi jëmee réew mi foo xamante ne kenn xamul fan la. xeex bi ñu ak moom tey la seen i jëmm tey la seenu njaboot ba tax Macky sàll dem. loolu comme doyul résultat doo gis résultat. Ah, euh, euh, premier gouvernement bi nga xam ne vingt cinq <laughs> ministres ak li nga xam ne moom la ñu wax moo di des comptes ak yooyu tey jàngat ngay def ci euh, début gouvernement wu maanaam Bassirou Diomaye Faye. waaw xam nga yooyu xajut fii dafa xaw a loolu dafa xaw a politique vingt cinq ministres ak yooyu. waaye li mën a am rek mooy man maa ngi dalal xelu tey ci yàlla rek lañ mën a wax ba beneen yoon ñu def interview wax ci àdduna ay ministre mais daal li wóor mooy ku dem ci alxuraan laaye ji nga xam ne mooy wa ma tasaauna ila an yasa allahu rabbul alamin boo ko adadee nga bind Ousmane Sonko bind Basirou joomaay fay ñoo tolloo net loolu nag te boo defee Basirou Diomaye Jaxeer fay mooy fukki laa ilaha illallah kon nag mbir mi mbirum yàlla la nguurug yàlla la yàllaa ñu ko jox yàllaa koy sàmm te na ci sénégalais yi dalal seen xel dina neex dina yàgg. incha allah kon baax na. nit ñi tàggal muy nekk carte gi leer loolu loolu loolu loolu leeroon na bu yàgg koor gi wàññi na ci dara génnuk Sonko kaso wàññi ci dara parce que bari ñoo xam ne bi Sonko génnee kaso seen xel dal na dematuñ defuñu dara mais bu fekkoon Sonko mi ci kaso bi 80 pour ko gis ci élection yi parce que nit ñi boo waxee boo bëggee dégg-dégg Ousmane Sonko lañ bëgg te liñ doon def yéene lañ ko booleel moo tax ñu woor di wate. tooñante la kenn toogul muy dox. waaw parce que kenn ku nekk boo toogee du dox. waaw waaw Oustaz Oustaz Modou Fall toogut day dem TFM muy dox kon kay moom toogut bokk ci boppam. déedéet xëy na loolu ay tooñante la yu nekk ci penc bi rek xam nga Oustaz daa bëri kaf. loolu la rek waaw jërëjëf